wa astajiru bika minan naar xadis bi bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mosumaa gis fu bët fu bët di tege lu dul moo ko gën a ñàng xadis bi ibnu maaja nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa rawaahu ibnu maaja waxtu bi lii suba waxtu daan taa bi six heures onze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 téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dina fenk sept heures vingt six juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom benn diso so dix neuf heures douze juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñaar yal na nu yàlla nangu te nangul leen amin